waxoon nañ leen ne njàpp yi yàqu na nalaw teqiloo nañ leen ko waxoon nañ leen amoon na ñeenti anam ñaari yàqu njàpp waaye ñaari dafay yàq ñaari yàqu njàpp waxoon mooy bu fekkee euh, nalaw yi dafa gàtt te oyof boobu yàqul njàpp bu fekkee dafa gudd te oyof nag nañ yàqul njàpp waaye sopp nañ mu jàpp bu fekkee dafa gàtt te diis moom day yàqu njàpp bu fekkee dafa gudd te diis tamit dafay yàq njàpp ndox ak mandi ak daan jinne yooyu tamit dafay yàq njàpp ndaxte mu bokk ci xeli dem mu ne ñu continue ci kaw mu ne waye jibu danga war alwudu alwudu u njàpp mu ne mula masati si laalante li lazati ngir bànneex lazati ngir bànneex mu ne nagoon timit jàpp dana war ngir laal laal ngir bànneex laal ngir bànneex rek la tudd waaye su laalee su si amee bànneex wala sax moom dasaa jubloon bànneex su si defee benn rek jàpp yu dafay yàqu loolu nag am ñeenti anam mooy bu fekkee daf kaa laal jublu si bànneex am ci loolu njàpp li su ko laalee jublu si bànneex am ci bànneex njàpp li yàqu noonu loolu tamit bu fekkee da laal jublu si bànneex waaye amul si bànneex njàpp li yàqu na naka noonu bu fekkee dangaa laal jubluwul si bànneex waaye am na si bànneex boobaa tamit jàppale yàqu na naka ñeenteel bi mooy bu fekkee daf kaa laal jubluwul si bànneex amul si bànneex boobu moom jàppale yàquwul kon ñeenti anam yooyu bu mu si benn jublu benn rek moo xam daf saa jublu wala mu am ko si rek si si benn am rek jàppal ne jàppale yàqu na kon loolu mooy ñeenti anam yi benn bi kase loolu yàq njàpp mooy bu fekkee jubluwul si bànneex amul si bànneex waaye bu fekkee jublu na si bànneex am ko si jàppali yàqu na ko tamit bu fekkee ko si waaye amul ko si jàppali yàqu na bu fekkee tamit jubluwul ko si waaye am na ko si jàppali yàqu na kon loolu mooy laal laal dafay yàq njàpp waaye si sarta mu jublu si bànneex wala mu am ko si mu ne wala mu bàyyi sharatu ak joñant joñant bil jasadi si yaram li lazati ngir bànneex ak joña yaram ngir joñ ngir bànneex joñante yaram ngir bànneex boobu tamit dafay yàq jàpp dafay dafay yàq jàpp joñ joñante yaram ngir bànneex dafay bu waxoon laal kese tudd joñante yaram bu baax mel na laal kese ah, lay lay laal kese jublu ci bànneex wala am ko si leen jàppale dóore yàqu moo bool na ci joyante yaram su fekkee dafa joyante yaram ashaara juñu ilay si wax ilay jëm si moom bu njàpp min mula masati ngir laalant nee na bokk na sabab sabab na waxoon mooy xamante ni li yàq njàpp mën na fa jaare am fa nit borom xam-xam boole ko si li yàq njàpp laal nag nit su laalee mën naa mën naa def li yàq njàpp foofu moo tax ñu boole ko si sabab bi mu ne borom taarifkat bi tudd na ko soo xam mu ne almuwaat lañ nam nag allam si laalu moom lu li jismi mooy dajeeg jisman mooy dajeeg ah, jëmm li jismi ñeel jëmm ala jaxatil ixtiyaar si anam ak tànn kawaay genre comme ni mu yëglee bii si waxam bii si moom xawlu woo xam li lazati ngir bànneex mu ne nam si laal nag mooy mooy ñaari yaram daje waaye si anam tànn comme moom ba mu niki ba mu ah, jël yaramam di ko si kële da ko waaye ngir xam kee mel ngir xam ba xam yaramam bi daa wow wala daa nooy loolu moo taxoon mu laal ko ngir anam ak tànn loolu su wax ne si mu ne ay li xas si amee bànneex jàppale dafay yàqu mu ne ay li xas diya jublu ko si aw wala am ko si liñ si nam bu fekkee dafa laal waaye jublu bànneex boobu dafay wala mu am ko si su si kon masu nag dafa am. lamsu am lamsu suñ ko waxee mooy ñaari yoonu daje waaye dafa laal ngir am ngir si anam tànn waaye massu nag mooy ñaari yaram yu daje nii kese comme ni ko ñëw romb rek laal yaram ke waaye jublu baane amul ko si loolu mooy massu lamsu nag mooy si anam tànn ngir xool ki yaramam mel mu ne xoola wax na xalil xalil mu ne walamsu walamsu laal yaltasu dana bànneex bii si moom saaxibahu borom waa aadatu ci aada wala li zufrin si weela aw saarin wala karaw ah ailin wala digle wila taawil nañ ko bil xafiifi si oyof bil itlaaqi ak ci booyet waasa lii nag xay laa dem mooy su tàppewul nee laal ku laal danañ ci bànneexu ci borom dana ci bànneexu si aada mooy ñi nga xamante ne yàgg mën nañu leen laal bànneexu ci aada mooy mooy ki nga xamante ne daanga mën mën nga kaa takk comme jabaru jàmbur wala wala jigéen koo xam ne mën nga takk ñooñ baaxoo nañ nit ñi ñooñ nga xamante ne baaxoo nañ nit su ko laalee di ci am bànneex ñooñ soo deret nit dafa laal wee bi sax wala karaw gi wala digle moo tax soo su ko defee digle mooy suñ ko waxee mooy comme diggante yaram kii ak yaramam am na benn digle comme yére bu mu sol yére laal si si dulloo bànneex la ko si jàppale dafay yàqu akonant mi nii foofu am na ñu bu mooy digle boobu su oyofee su ko si bànneex wala mu am ko si lay jàppale yàqu comme dafa diis ma xam ne su laalee sax du yëg yaram bi boobaa am boobaa ñu ne jàppale moom boobaa am na ñu ne jàppale yàquwul waaye lu ñu wax moom am nañu ne tamit mooy nee nañ nu mu mënti demee rek jàpp yàqu na moo xam yére bi dafa oyof wala dafa diis ñu ko am na wut ñetti weer ñii neen su oyofee lay oyofee lay jàpp lu dóor yàqu ñii neen su diisee moom jàpp li yàquwul waaye am nañu ne nu mu mënti demee rek su oy moo xam dafa oyof wala dafa diis jàpp li yàqu na kon ñu déggee si nit bu fekkee dafa laal ki nga xamante ni baaxuñ di si am ah, bànneex ci moom si aada comme comme xarmante wala xale bu ndaw a ndaw ndaw boo xamante ne matagul see comme ñetti at lay am jëm suuf kooku ñëpp xam nañ ne ku wér ki nga xamante ni nit na du baaxul du ci amee bànneex moo tax kooku ah, ki nit ki laalee am ci bànneex su ko am ci bànneex comme yu ndaw ci bànneex mu jublu ko ci boobaa jàpp li yàquwul ndaxte kooku moom kooku noonu laal kooku dafa wérul te ku wérul Euh, l'islam du tabax àtte si du tabax àtte si loolu si ki nga xamante moom mu ne kooku kon kooku kooku su ko laalee boobaa dara da am bànneex wala mu jublu ko si sax njàppale yàqu loolu moom ñëpp dëppoo su laalee yaram waaye su laalee awram bi awram bi boobaa moom ah, borom faako dawaane dana wax si kanam ne ku laal awra xale su si amee bànneex wala mu jublu ko si nee na jàppale yàqu na loolu la wax moom waaye li nga xamante ne borom Usmaan yi waxoon na ko mooy ne su laalee awraam teel sax dasaa jublu baan am ko ci jàppali yàquwul ndax na ko noonu tamit ku illaali yaaramu daaba si jubloo bànneex wala mu am ko ci sax jàppali yàquwul daaba nag ci ko waxee mooy xari bëy yooyu mala yi daal su ko laalee deret dasaa am bànneex wala mu jublu ko ci sax jàppali yàquwul su ci amul bànneex jublu ko si nag ah boobu ñoo yem la waaye su laalee pëyam bi tamit borom Fayakour Dawane dana wax si kalam na njàpp li ah, dafa si amee bànneex wala mu jublu ko si njàpp yàqu kon kon borom xam-xam lu wutee si laal comme xale wala daaba yi mooy pëye bi pëye bi lañ wutee am na ñu ne suba laal jublu si bànneex njàpp li day yàqu am na ñu ne du yàqu mu ne wa amaa law damma xam nga li ñu teqale nii mooy bu fekkee tàppiwul yaram bi mooy bu fekkee tiiwul ko nii li zaati ñel jëmm ga almunal muusa ba ñu laal aw qabada wala mu ngëb ala cheyin ci dara min jasadiha ci yaramam fa inna wuduahu naka njàppam yan taxidu day yàq njàpp fa inna wuduahu naka njàppam day yàq ittifaqan ci dëppoo borom xam-xam ngir nee na bu fekkee nag moom ku mi laal waaju waaju laal noonu daa jàpp yaram bi comme daa jàpp yaram ku laal téye nii ko moom nee na sax ah, lum sol dafa diis su ko laalee dana yëg yaram bi ndax dakaa téye xam su solee lu diis su ko laalee nii rek bu daa mu koy yëg yaram bi loolu moo bu fekkee moom comme dafa dafa kaa téye nii moom dana dana yëg yaram bi force boobaa dakaa téye boobaa moom jàppali dafay yàqu fekkee am na si bànneex wala mu jublu ko si loolu nag ittifaaq mooy borom xam-xam ngir waxoon naa leen ko ittifaq borom xam-xam ngir bi yëpp dëppoo nañ ne su ko téyee noonu dara sax ah, dafa ngir bi dafa diis sax jàpp dafay yàqu su amee bànneex wala moom la moom la mu ne walaw nekk na xaay loon di aji digale kasifan bu fat bu fat xasada jublu na si la zada bànneex aw waja daa wala mu ko si nee na ba mu koy jàpp noonu sax yëre bu diis la sol du fekk comme fekkee am na si bànneex la wala mu jublu ko si rek njàppali dafay yàqu mu ne wax na ko ujuuri ujuuri naqan toxolaan ni xataab si xataab loolu nag ujuuri moo ko wax jëlee ko si xataab xataab nag borom xam-xam la ki nga xamante ni moo laaj wala mu jublu ko ci sax kooku njàpp la yàqul xale nag suñ ko waxee mooy ki nga xamante ni matagul mu kallaf kooku mooy xale kon kon dañu sàkkaar mu nekk mag mu nekk jot baax su jotee baax daal su laalee fa in balaga si ku laal mu nekk mu jot baax moom man kalaf noonu lañ sartaale si kuñ laal bu fekkee kuñ laal moom ah, xale la dara sax bañ koy laal moom dasa am bànneex wala mu dugg kon kooku noonu dañ sakkaal mu jëkk baax na ko bu fekkee mag waaye bu fekkee nag mag moo laal xale bi nga xamante ni mën ah, mën nañu seeg moom xale bu kooku mag boobu su ko laalee su si amee bànneex wala mu jublu ko si njàpp li dafay yàqu kon kon daal jàppal ne mag su laalee xale boo xamante ne nit mën na saa am bànneex rek su si amee bànneex wala mu jublu ko si njàpp li dafay yàqu mais xale boobu moom bu sax daa am bànneex su ñu ko laal wala mu jublu ko si njàpp li yàquwul kon nu ñu sartaale si ku laal noonu la ñu sartaale si kuñ laal kuñ laal tamit bu fekkee jot na baax moom bañ koy laal am na si bànneex wala mu jublu ko si njàpp li dafay yàqu ndaxte moom jot na baax waaye su jotul baax njaabili yàqul mu ne wa bi xaydin aadati tënk nañ ko si aada tënk nañ ko day génn al ittisaasu bànneexu bi saxiiri si xale bu ndaw ay xayru mutiqatin bu mënta sëy awi daabati wala daaba fii ni woon ak moom aayen xur du yàq wudu njàpp illa illa littisaas li mooy bànneexu mu ne lu ñu xool ne comme comme comme ki nga xamante ni dafay bànneexu mu bànneex si aada si kuñ baaxoo si nga xamante ne baaxoo nañ ci moom di si am bànneex dëgg ki nga xamante ne baaxoo nañ ci moom di si am bànneex kooku noonu wax bu fekkee daga laal su si amee bànneex wala mu jublu ko si jàppale yàlla waaye nag kon loolu génnee nañ ci xale bi nga xamante ni xale bu ndaw ba nga xamante ni mënta sëy wala daaba yooyu kaw moom su ko laalee kon si da fekkee dangaa laal lu waxoon nañ bu fekkee dangaa laal si jubloo baax na wala on ko si mu da yàq njàpp li tela fi ngir wuti ah aadatu naa si aada nit ñi bi tisaal si na waaye bu laalee pëye xale bu ndaw laal pëye taaba boobaa moom njàpp li dafay yàqu njàpp li dafay yàqu su fekkee nag am na si bànneex wala mu jublu si kon si amul bànneex jublu ko si njàpp li yàquwul woon ndaxte am na nit xamante ñoom seen aada am na nit ñi si am na si ñoo xamante ni seen aada mën naa am ñoom ah, dañuy bànneexu si bu xale bu ndaw wala si daaba moo tax moo tax comme ñi nga xamante ni dañu bànneexu si peeg xale bu ndaw wala si peeg daa ba ñoom ah, ñu am ko si jàppale dafay yàq mais ñi moom duñ bànneex amul seen aada nekkul loolu loolu moom ku si laal si laal xale bu ndaw ko daa wérul na borom sara borom faak doane mu ngi ko dana su ko si jàppale dafay yàqu mais borom Ousmane lu mu waxoon moo ne jàppale yàqu dala am na si bànneex wala mu jublu ko si walisaaka loolu nag walisaaka loolu tax nas bi bind nañ naqadal wudu si yàq njàpp bi li tisaar si bànneexo bil maxarami si xarmante ne loolu tax ñi ne njàpp ku laal xarmante xarmante ne mooy koo xamante ni nit mënu kaa takk comme rakkam wala magam wala ay ay waajuram yooyu yooyu moom yooyu moom ku yooyu ñooñu ñooy xarmante ñi mooy képp koo xamante mënoo kaa takk rek kooku mooy sa ko xarmante sa xarmante doon loolu moo tax ñu ñe nit su bànneexoo si xarmantem jàppali dafay yàqu xarmante nag wute si am nañu nit su ko am na si bànneex wala mu jublu ko si san jàppali mais lu gën a siiw si ngir mi daal mooy ne ko laal am si bànneex wala mu jublu ko si jàppali yàqu na wala mu wala ba mu nekk yëtu xamu di defe xasrul mala masati tënk laal ga ama kan si nekk bi yëddi si loxo faqat dong dafa jëng zaalika loolu ak taxaw mu defe ko bi xawli si waxa yejub dana war alwudu njàpp ba tey min mubasharati baax joñante bil jasadi si yaram li lazati ngir bànneex lii moom lu mu bu fekkee waa ji moom dafa wax dafa wax laal kese laal ngir bànneex boobaa yooyu da si génnee da si génnee joñante yaram dafay mel laal kese moom laal kese soo laale kese nit ki su laale kese am ci bànneex si lay wala ma jublu ko si si lay njàpp doodu yàqu si jonante yaram sax njàpp di yàqu déedéet waaye lu mu tudd jonante yaram moo tax moo tax fekkee dafa jonante yaram ah, ngir am am ci bànneex wala mu jublu ko si boobaa njàpp li dafa yàqu mu ne wa fuyu mi dégg nañ mu mulaman si si sartak laal ana ittisaasi na bànneexu nazarin si xool min xayri lamsin si lu dul laal laa yanqudu du yàq njàpp wala anasa deretu kon ki nga ni dafa laal su si amee mu jublu ko si njàpp lu waaye ki nga xamante ni nag daf dafay xool xool dafay la waaye laal sax ba mu xool noonu mu ngi am si am bànneex kooku dere ah, dafa tukkal tukkal na bu jub te génneewul ma jire jàppal ne jàppale yàquwul kon kii xool fekk fekk fekk génnewul majeur jàppal ne jàppale yàquwul su dee mu si am bànneex sax su génnewul majeur jàppale yàquwul wala wax na xalil xalil borom xalil mu ne wala wala lazatin dee bànneex bi nazaratin si xool ka inaasin comme tukkal xaysu la majeur su génnewul majeur mu ne ki nga dafa xool dee sa ah, muy tukkal fekkee am na si dele am na si bànneex sax su génneewul masjid rek kooku jàppali yàquwul kon loolu loolu la xalil wax loolu lañ jotoon andi si dara suuf tey li si jub si yàlla la si dënk suñ kaat koom-koom la ak suñ néew gëstu uridu illa al islaam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu